bismillahi rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billahi aliyyil aziim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa ba'du assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw ñu delluwaatee sant yàlla ci def lu ko neex dara du ko ci waaye ci may ñu ak pexe biñ ko mënee jaamu ndax amuñu benn kàttan ci jëf wala ñu benn pexe ci mooy lu dul neex na borom subhanahu wa taala kon ñoo koy sant bu baax a baax di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne mooy suñu mu xirtal ñu ci boppam di julli na Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy sang-sang yi di yaakaari jaam yi te yàlla xooloo ñu kenn ku dul moom di Seydina Muhammad di ñaan yàlla yàlla yàlla doolu cofeel suñu diggante moom yàlla yàlla dool di ko leer comme ni wax koy waxee yàlla bu ñu waxee Seydina Muhammad ñu ngi sallallahu yéen yàlla doon xéewal alay ci moom wasallama te mu doon ko mucc wa di nuyu di ziare Serigne Babacar Sy Mansour amruhu wa ayyaduhu nasara di ko ñaare yàlla yàlla doon di fanam yàlla yàlla doon di sàmm ko yàlla yàlla doon di wattu ko yàlla yàlla doon di mu menek di mission Serigne ay di mission yonentam waaye di mission yàlla yal na yàlla dool di dëgëral ko yal na yàlla dool di sàmm ko yal na yàlla dool di wattu su wax dee jama noppi or la waaw su wax dee or noppi jama la kon tabarakallahu noppi gi noppi waaye na saa yi waree wax li war a di déggee na wax kon yàlla yàlla loolu guddal fanam yàlla yàlla loolu sàmm ko yàlla yàlla loolu wattu noonu lay ñëw sëñ Muntaxa Mbàkke xale bi yàlla day murit di ko ñaare moom it yàlla yàlla loolu dëgëral ko yàlla yàlla loolu sàmm ko yàlla yàlla loolu wattu ko bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nañu taxawaayam ci réew mi gis nañu taxawaayam ci mbokk yi gis nañu taxawaayam ci diine mu mel ni fa tabaarakallaahu ndox mi nga xam ne moo répété wu fii ci Touba mu mel ni fa tabaarakallaahu muy nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi di Touba jëm ca kanam su ma juumul ak bañ wax lu ma wóorul daanaka laaj lan leen sant waaye kenn laaj la defar kon boo laajee ba pare xoolal leen ñu soo laajee ba pare xoolal ki mën métier bi nga jox ko xoolal ki ko mën waaye bul jéem a def sa pexe bopp ndax asaa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrun lakum nit dina bëgg dara di ko def fekk na bon bon la koy jural mu mel ni ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir Tuuba ndox yi nangu seen kër yàq kon bi ñu laajee laaj lan leen laaj waaye waxuñu la ngeen defar kon xool leen ñi nga xam ne ñoo mën mbir mi. sëñ Fallou fa tabarakallah mu ngi tabax jumaa ji di ko yeggale tubaab la fi woo ab chinois ndax xam ne lii ñuy seen métier la fay leen leen ñu ko kon fa tabarakallahu boo lëkkatee rek fa tabarakallahu bu ngeen laajee ngeen xool ñi nga xam ne ñoo mérité mbir mi ñi nga xam ne ñoo jàng mbir mi ngeen jox leen leen ko ñu defal ko moo gën a rafet te moo gën a jekk waaye nag xër bu ëpp baaxul xër bu ëppee baaxul. mais yow ni sa xër baaxul waaw am na nu ko tasaaree waaye rawatina nag ci lu demee nii nag wa tabaarakallah lu ñëpp bokk di ci yëglu wa shaawir fil amri deel fa tabaarakallahu di ci waxtaan ak ñu ci war a waxtaanal waaye kay wóolu leen di wóolu leen leen liggéey bi rafet na macha allah laaj bi ni ngeen koy defee rafet na waaye bi ngeen demee nag ba jot kanam mu wóor na la som bi dugg na fa tabaarakallahu li ci war def def leen ko ci. ñi mérité mbir mi jox leen ko ñu defal ko kon fa tabarakallahu ñoo ngi jégaluwaat di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàlla doolu guddal fanam yàlla doolu jàmm ko màggal bi jëm yàlla ci yàlla yóbbu ci jàmm fa tabarakallahu ñu dugg ci yoonu safar nag tabarakallahu di ñaan yàlla rek lépp luñ ci jàmm rek lépp luñ ci jàmm rek yàlla yàlla nangu woo lépp luñ ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu xalifa général des sëriñ Baye Bekay Bekay Kunta fa tabarakallahu di ko ñaanal moom it yal na yàlla doole ko di nuyu xalifa général Thiénaba di nuyu xalifa Mankal Baye fa tabarakallahu dem ba Medina Baye dem ba Léona Niassène dem ba Yoff dem ba Thiénaba bàyyiwuñu kenn kenn ku ne ñoo ngi nuyu nuyu lislaam nuyu bi xam ni duñ ko séddoo dañ koy séddoo te du jeex muy baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa tabarakallahu ñu dellu si waat fii seen émission bi al ilm wa taalim di xam ak xamle ngeen xam ne ko Oustaz Ibrahima Diallo fii Salam Vision ñu delluwaat ci valeur yi ci jikku yi ñoo ngi doon yuuxu boobu léegi nawet bi ndox mi ndox mi ndox mi ndox mi wa tabarakallahu njiit yi wax naa ko dinaa ko waxaat nañu xoolaat njiit yi ñuy tànn nañu xoolaat ni ñu war a jiitu donte nag yàlla mooy jiitu doomu aadama waaye ñu bàyyi xel ne rek àdduna bi du suñu maam Seydi Hadji Malick waxoon moo ci nekk daaru dunya daaru nawka wa jiifatin yu jazzi waa fa xasal bi tigil kal nee na bi këru dof la ak këru mëdd ñaar doom ñoo koy xëccoo dof ak mëdd ak ki nga xam day bëgg mëdd xaj day bëgg mëdd mu ne ñii ñoo ci seen bopp waaye loolu fi mën a dajale ko xoolal ñu fi bàyyi ko yëpp poste yu ñu yoroon seen kër yi lan moo leen ci kon yooyu muy dangi di di di wut ay milliards di wut ay kër yu bare di ko dajale ala kulli xaalin bis dina ñëw di nga ko bàyyi fii dëgmal borom subhaanahu wa taala te sama sénage maa def ne fas zawi mina dunya fa innaka raxilun fala li kulli musaafirin man zaara léegi da ngeen yóbbal ndax fi ngeen jëm ku fa yóbbul doo fekk dara waaw ku fa doo fekk dara te kuy tukki nag. faa nga yóbbaale yóbbal kon nañu xoolal suñu comportement xoolal suñu yaay ci ndox mi xool leen suñu sœur yi xool leen suñu rakk yi xool leen suñu mag yi ngeen ne ay kilifa ngeen ngeen ay njiit ngeen man su ma doon balaam bay balaame tey damay balaame kilifa diini yi lay gën a balaame li tax ma leen di gën a balaame parce que ñoom ñoo fi représenté Seydina Mouhamed te Seydina Mouhamed danaan joxe ba dootul desee dara dara dara dara ci poosam fa yaay sama sëriñ nee na kooku jàngal na dalaa war fa taalimu fardun wala bu ijaarati kooku ba tamit nag ci wàllu àddinaam waxatuma nag ci wàllu alaaxira kon dañu xoolaat suñuy comportement xoolaat suñuy doxin xoolaat suñuy jëfin yàlla wax na ci alquran ne wal asri inna al la fi xusrin illa allazina amanu wa amilu salihat ñen ñooy ñooñu nag mu ne wal asri giñ ñaa ci ñu ne déedéet ci tàkkusaan la gi kon yàlla bu ne bay giñ kon li muy wax ñor na ko mu ne innal insaan ni ki doomu aadama yi la fi xusrin wallahi ñun ñëpp ñoo ci perte mu mel ni ko ñu ñëpp ñoo ci biir mu ne doomu aadama yëpp perte nañu mu ne illa lazina amanu ba mu des ñi nga xam ne gëm nañu ñun ñoo gëm ñun ñoo gëm yàlla waaw dañuy gëm-gëm yàlla wala dañoo gëm yàlla ana ñun ñoo gëm yàlla ci ñun ñi tey tey jullit tey la li jiitu si jullit mooy social ñun doo xam ndax nangu na dimbali dañu ñu da ngay gis tey ku am problème ordonnance junni doo ko si nangoo jàppale te cinquante mille nekk sa biir poos gis koo xam ne am na problème bu kilo ceeb nga denc ay magasin magasin ceeb sa biir ne nga ne jullit nga te Seydina Muhammad daf ne du jullit du jullit du jullit ba mu ñetti yoon ñu ne ko yaa Rasulullaah kan la mu ne ko mën a lekk ba suur bàyyi mbokku dëkkandoo kon ilal lazina amanu ana ñi nga xam ne gëm nañu yàlla tey ñu ko Seydina Mohamed daan defee ñu ko suñu sëriñ ba daan defee sëriñ Abdou Aziz Dabakh yàlla yàlla yokk leeram danaan joxe joxe joxe joxe joxe joxe ba am problème lu mu joxe pour ñu taal këram añ tey tey day koo ci dem fii tey suñu ñii tey kenn ku ne sa compte kenn xamul ñaata la boo déggoo sa magasin yi li fa ne ciy ceeb kenn xamul lu mu toll li fa ne ciy diwlin kenn xamul mu toll te ñu la wóor am na ñu la wóor ñoo xam ni dañuy am problème mu lekk am problème mu naan waaw waaw fa tabaarakallaahu am ko am problème mu 500 da ngay dem si jàkkee tey ñu ñuy ne si jàkkee yi dañuy indil ordonnance indil ñu ordonnance ba dañuy billaahi ba sax say say xarit sax ñoo lay woo ne la diw bàyyi ordonnance yi ngay jëli waaw ndax dafay bëri dañ la koy indil di la ko indil billaahi jox soo yi jullee takusaan wala timis nga jóg laajal leen li nga fay laaj da gis koo xam ne indi ordonnance su 10 000 wala 15 000 lu fay am lu te kenn rek si sàpp bi rek war na ko mën a fayal. waaye cent franc cent lay génne juróom juróom juróom juróom te nga ni jullit nga te jullit mooy social waaw social ci jullit seen dama xam ne mu ñëwee Medina xutba bu mu defoon bi daf noonu ko am ñaari jabar joxeel benn ku am ñaari kër joxeel benn kon l'islam social la dimbalante la l'islam dimbalante la mais du ay wax du ay saagante du ay xasante du ay wante maa la gën sëriñ wala maa la maa la gën àgg ci yàlla déedéet l'islam dimbalante la waaw ilal lazina amanu ñi gëm wóolu yàlla waaw yàlla wax na si alxuraan wa mina naasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil aaxir wa hum bi muminina am na ñi nga xam ñoom foofu fu ñu toll ñoo ngi naan gëm nañu yàlla gëm nañu alaaxira gëm nañu yeneen dem waaye gëmuñu dara waaw wa ma hum bi muminina yuxaadicuuna allah wallazina amanu wa ma yuxaadicuuna ila anfusihum wa ma yashcuruuna nag waaye li ñuy wax dara dara dara dara dara la ci gëmul jàpp na ni ñoo ngi war yàlla waaye seen bopp la ñuy war ndax yàlla kenn mënu ko war waaw waaw cinquante mille yi ne sa poos moomoo ko cent mille yi ci banque bi moomoo ko deux cent mille yi nga def ci banque bi moomoo ko sa armoire bi yëre yi li muy bare bare moomoo ko bi nga sol loolu nga moom li nga lekk loolu nga moom loo fi bàyyi dañ ciy def leen neex doo ci mën dara waaw li nga def ci banque bi moomoo ko de boo deewee bàyyi ko nga xam ne moomoo ko daañ ko lekk def si lu leen neex bu ñu ci defee lu neexul yàlla nag mu nekk ay duba ci yow waaw kon nit ki illa lazina amanu ba mu des ñi nga xam ne gëm nañu wa amilu saalihaat ñuy jëf-jëf di jëf-jëf ju baax ay fu la yaa ngi xase fu la fekk yaa ngi saagaate fu la fekk yaa ngi tabaate dëmm fu la fekk yaa ñu jaamul fu la fekk yaa ngi doole fu la ci nit ñi lu bon te foo toll nga ne jullit nga illa lazina amanu wa amilu saalihaat waaw dañuy jëf-jëf yàlla ba mu des ñi nga xam ne gëm nañu tey jëf-jëf yiw te fooy fekk nag wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabri foo leen fekk ñoo ngi digal nit ñi ci dëgg alxaq yoolaa wala yoolaa alee waaye bëgg ci dërëm dara bëgg ci bëgg ci poos nit ki dara tax na doo ko dëgg wala boo ko waxee dëgg dootuñu ànd wala su ma ko waxee dëgg dootuma lekk ñaar téeméeram yaa ne la fayda yaa doyee di yaa ñàkk fayda bi nga ne si juróom-ñeent maa min daabatin fil ardi illa ala llahi risqoha wa yaalamu mustaqaraha wa mustawdaaha kullun fi kitaab mubinin ku jàpp ni nit moo yor sa wërsëg na dee ba xam ndax di nga lekk wala doo lekk yàlla ne maa yor wërsëgu doomu aadama yi dëgg amul kenn kenn kenn kenn kuñ koy jombale wax ku jéggi raay bi rek na leen a jéggi nga raay bi ak koo mën a doon waaye fi Sénégal yi dañuy taamu ñuy wax dëgg ñuy dul wax dëgg waaw ki sant Diop moom bu waxee bu waxee heure bu waxee dëgg sax ñu ne waxu jaagul këriñ la waaye ki sant si wala Mbàkke wala Ñas wala a wax lu mu wax dina dëgg pour ñoom warul juum daa am na benn waykat bu fooy mag dina juum ndaw dina juum kilifa dina juum surga dina juum yàlla rek dul juum kon nit ki booy ànd moom da ànd moom ci dëgg waaw su juumee ne ko bi juum nga su ma soxla kat sëriñ bi nii la nii la nii la bu juumee ne président kat juum nga président su ma soxla kat nii la nii la nii ministre bi juumee nga ko ministre bi juum na waaye ñun pour ñoom noonu jaay këriñ bi ak jaay ko gerte caaf ginaar bi. rek kay juum waaye sëriñ bi nag moo warul juum wala président warul juum wala député warul juum te ñoom juum ci ñoom la gën a yomb nag waaw Seydina Muhammad xamoon nit nit kese la moo tax mu amoon ay conseil ñii ay conseil am lañu woon Ababacar Omar Ousmane Seydina Ali balaa muy def dara da leen di woo taaj waaw am na xare boo xam ne benn saxaaba moo ko tegal stratégie ni ko war defee kooku bu daawul woon nu muy def kon nit ki dangay ànd ak moom ci dëgg dëgg moo njëkk dëgg moo mujj waaw te dëgg rek moo jiitu leneen lu dëgg watawaasaw bi sabri maa ngi leen digal ci ngeen di muñ da ngeen di muñ waxuma nag muutale muñ ak muutale lu benn muñ da mën a teg sa tànk waaw damay fekk sàmm mu toog lu ne mu toog fu mu toog waaye su ma nee gaa téel mbéj mu jóg boo ko fay sàmm dox suñu diggante boobu muñutul du si mënul dara waaw mu ne ko tëll mbéj mu mën a fayu fayuwul banquee loxoom bàyyi ma dem yàlla ne ko naa la fajal sama waaye boo jógee di fayu yow suñu diggante maa yow ñun la muñal nga toog boobu muñatoo da ngaa muutale waaw kon muñ ak muutal du benn kon yàlla yàlla xiis boppam yàlla fi dëgg-dëgg jullit yàlla dafa ñu jàmm am nag jàmm alaaxira ñaan yàlla yéen réew mi yàlla fi yàlla def jàmm yàlla yàlla doon ci réew mi sutura dafa ñu jàmm am na jàmm alaaxira bi ñoo ngi nuyu waat ñëpp ziare ñëpp di baal wax ñëpp daal mukk di nuyu suñu sëriñ boobu seen jaay mosu nekk ba Mbàkke tabaarakallaahu nuyu xëy waa Bakar Sall sëriñ Moustapha Sy responsable Moutafina fi Asal Abay wal Ajdaad di ko ñaan yàlla yàlla a guddal faram sëriñ Mame Ousmane Sy Dabakh tabaarakallaahu yàlla yàlla gën a faram nuyu sama papa yi papa yi moom kay papa moom kuy ñoom Dramé tabaarakallaahu fàtte fa ñu kenn di nuyu na fa tabarakallah sama xarit boobu sama sax boobu sama doomu ndey boobu di Moussa Ndiaye yal na yàlla taxaw ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.